internet limametti point com dal leen ak jàmm ñu ñëw ak yéen ci naafila ak ñeenteelu guddi ci weeru koor ñu mën ci am ràkk ràkk bu ci nekk ñu tari ci faatiha benn yoon xul yaa ayyuhal kaafiruuna ñetti yoon sëriñ bi nee na ku ko def incha allah dees na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moom jóge fa mu ko doon defee te des na ko bindal tuyaaba ju tool ci jaamug yàlla junniy nit jàngale mi nag ñu ko jëlee ci téere sëñ soin bu moom sëriñ Touba limametti point com mu ngi leen di ñaanal kooru jàmm Thank you.